téléspectateurs yu sunu label TV nuyu leen dalal leen jàmm ci seen émission art et culture art et culture am mbégte bu rëy ñëw fii ci village des arts ñu ngi village des arts fii ci atelier Adama Boy Adama Boy di artiste plasticienne moom mooy présidente des artistes plasticiennes du Sénégal Adama Boy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Awa euh, di nuyu waa télévision bi yëpp. Euh, di ñaan yàlla émission bi yàlla def ci barke. incha allah mm-hmm. yaa ngi nekk euh, artiste ay at nga nekk artiste peintre. di defal ay peinture entre autres am nga ay particularité am nga ay mm-hmm. influence par exemple sa peinture da nga ci boole waale li nga xamante ni moom moo di tissu entre mm-hmm. autres euh, waaye ci njëlbeen bi du loolu moo nekkoon sa jaar-jaar foog naa scientifique nga woon tuuti laata art bi ak culture bi di la këf. voilà voilà. <laughs> effectivement euh, xam nga ci nit ku nit ku nekk ah, am na luy nelaw ci yow ta xamuloo ko donc euh, dama débuté en tant que technicienne euh, en bâtiment donc ca njëlbeen ga nag laa yëg leneen sama biir muy art bi di peinture donc ma def ci fulla aussi daal di si engagé wu yàlla def si jàmm aussi parce que loo def fulla rek yàlla jàppale la si donc sama aar dama commencé peinture peinture xale peinture jigéen euh, loo gis rek dafay commencé après euh, j'ai rencontré la peau euh, mooy der ma rencontré ko bi ma ko rencontré après sëru dënk ñëw tegu ci. loo doon def ak bi dama koy jënd defaraat ko. di ko xooj ak détergent tous les jours pendant quinze jours je me rappelle benn tabaski sax man ñëw naa liggéey si parce que ma sotti benn jour bu ma ko dindiwul defaat ko weeraat ko donc buñ ko tanee ba pare man dama koy pour dindi les odeurs ak deru yàpp yi des si peau bi après je le vraiment je le tressais à la la toile D'accord. Donc, je le tresse à la toile. ko ci donnes lait des fois. Je colle que tu en même temps parce qu'il faut que je boole ko avec la toile. donc en de compte dama dem ba sama peinture ci boppam nuroog der. dafa am ay mélange yu graw quand même peinture ak der. waaw parce que bi ma commencé man dama gisoon euh, man bi may def euh, stage à l'urbanisme euh, fële ca ginnaaw maison du parti bi ñu doon école boobu nekk foofu école des post télécommunications. foofu laa doon defee stage sur le chantier donc euh, en 87 donc euh, ci foofu la jigéen ñi doon tane donc à midi comme sama yaay daf ma doon interdit may may may lekk ci boolu mbedd yi donc man dama doon dem ci jaaykatu gerte yi foofu di leen dimbali ñuy saaf ñu may ma gerte ma lekk alors odeur bi di ma rey je suis allée voir qu'est-ce qui s'est passé j'ai vu comment tane tous les jours pendant des mois donc euh, c'était oublié euh, un jour rek man je ne sais pas ce qui s'est avec la peau je suis allée à sama xel nekk ci dara ma dem marché face ma fekk fa mère Tabane que je voyais là-bas ma ne ko ah da koy jaaman lii laa j'en ai acheté deux à quatre et j'ai fait j'ai j'ai peint là-dessus bi ma peinturé peinture première toile bi may exposé maa ngi ko exposé galerie Mame Cuuc D'accord, c'est Saint-Louis. En 98, je pense bien. Après, j'ai vendu. après li si des ma denc ko parce que j'avais peur man ma ñëw jël di defaruma ko ah dama ñëw repeindre rek et puis marché quand bi ma dellu see nag dama denc der bi suñu kaw terrasse boobu seeguma euh, pendant quatre ans ma gis ne peinture baa ngi ci ma yëngu ko sama atelier ñu ko si atelier bi pendant pendant deux ans encore hein un jour rek ouf je me suis lancée et, et je pense que bi ma liggéeyee der bi ba pare donc un jour un artiste est venu dans mon atelier on a échangé bi mu demee laa ne moi je fais une exposition j'ai commencé l'expo et le titre de l'expo quand même je pense que bi ñu may defal euh, les cartons d'invitation euh, euh, ndeysaan Ismaïla Mangane ma mayoo expo bi nan la tudd. sa première expo la loolu. non non non non c' est ma première exposition c' est en 97 au centre culturel c' le centre culturel euh, français moo def sama promotion en 97 man c' est le centre qui m'a lancé vraiment donc c' était li may wax 2001 la woon. donc euh, à partir de 2001 laa commencé liggéey peau bi parce que jusqu'à je faisais du collage avec le papier et tout le collage pagne tissé que je fais là je le faisais avec du tissu. lan la yóbbee ak pagne tissé sëru dënk sëru njaam. sëru dënk bi moo bon euh, moi je voyais dama doon gis sama yaay bu sëru dënk yi euh, râpé daf leen di teppi roulewaat leen denc leen ma yaay yow dama may si mu ne ah mu may ma deux rouleaux rouleau bu orange ak benn rouleau bu verte donc euh, ma garder ko dans mon atelier hein. un jour quand j'en avais je, je pense hein, dans les réflexions j'ai pris le pagne tissé ma ne pourquoi ma commencé kole après may boole pagne tissé bi ak euh, ak der bi waaw non je vous dis que résultat bi ça doit faire le wow. était bon mais je ne savais pas ce que je faisais parce que la première chose c'était sàmm lu ñu moom la préservation de la culture la la def quoi je avec ce petit ce dinaa dem ci quelques années parce que j'ai même travaillé après euh, bi loolu wéyee ma liggéey ak der bi ak paañ bi bi ma liggéey der bi ak paañ bi xam nga booy liggéey da ngay dem mais doo xam ni ngay def mais une question rek moo lay un journaliste de la RTS mm-hmm. m'a posé la question jour expo. Mais, mais, mais, mais, je me suis lâchée. Parce que je ne savais pas ce qui se passait. Mais quand je me suis rendu compte que le pain tissé, yow boo juddoo sa bàjjen daf lay jox j'ai dit ça. dafa bokk mais je ma ça je ne l'ai pas préparé. après ma ne ko soo soo soo soo soo juddoo suñ lay ngénte donc euh, dañ lay reyal xar. donc bu dee góor bu jongoo la même chose sëru dënk yi la ñuy julli après leen. booy sëyi booy sëyi donc ba ba ba bu la yàlla moomee. dëgg la qui est la vérité divine. parce que je travaille beaucoup sur la vérité divine. ah ouais donc non c' est. le côté spiritualité. Euh, tamit moom c' est c' est je suis. yi dañuy wax ne da ngeen am maye yàlla. en tout cas euh, liggéey bi du liggéeyu neen. du liggéey neen parce que da ngay jóg dem c'est on subconscient qui qui bi lii lay wax loo guddi gi nit ñi di nelaw ñi di nelaw nga toog di xalaat ah démb damay bëgg yeggal sama benn œuvre mais démb si guddi genn waal gi nelawuma mais ah, dañu day mel ni en fait euh, looy matu la looy matu mooy génn ça même dans mon travail architectural quand tu me demandais à on demande on vient dañ lay laaj man daal bëgg naa ñaari neeg ak salle mais c'est la même chose moi je me suis dit que les deux métiers que j'ai faux man dama doon tëdd bu di yeewu di di esquisser mais soo yeewoo même chose. parce que architecture tamit am na. c'est la création euh, la ak cosaan c'est la création ni da lay ñëw rek ne la defal ma foofu moo gën a metti parce que. Euh, dañ lay commandé dimension scientifique tuuti aussi. technique moo tax je très technique dans mon travail artistique. Hein. Wow, je suis ça, très, je calcule beaucoup comment je pose mes trucs. Au début, je ne calculais pas. Mais après, tu calcules symétrie, perspective. Tout ça, je le calcule maintenant dans mon travail artistique. Et ce qui est très normal, parce que euh, art c'est scientifique, c'est très scientifique l'art. En fait, art, dañu ko bëgg a jàppee lu yomb dafa yomb lu yomb waaye yombul. Non non non non non non non non un nul art ne peut pas être un artiste. dañ leen wax ni laal parce que dañoo mën dessiner mais parce que ñoo leen gën a muus. ok am lu ngeen amul. mën nañu lu ngeen mënul. mën nañ lu ñu mënul waaw aar daal moom. ok mi ngi noonu daal kenn mënu ko def. jigéen soxna ci aar loolu lan lay def. Euh, saf sap mais très agréable. <laughs> très agréable euh, jigéen euh, d'abord nekk jeune fille suñu temps bëgg nekk artiste dañ naan da raakaaju. dégg ngeen lu ne tamit ah. jamono dañu tux yàmba man ka gis nga école des beaux arts sama yaay bu midee da doon yónni bon bi pour mu indil ma ñu añ bu ma indilee añ mu wax ko xoolal ndax nañu nekk foofu mu leen. bu jógee foofu dem sama grand frère université <laughs> suñu bon bi ñu tuddoon awa la mais awa moo ñu doon surveiller mais je te jure mais aussi il faut faire attention aussi waaw ñun dañuy def attention heureusement euh, dañoo am éducation bu baax. loolu da lay yóbbu yar bi ñu def ci ñun diine diine bi ñu nampatal waaw dafay dafay contribuer dafay contribuer et quand j'ai commencé la peau euh, donc euh, benn maire wax ma mu ne ma ñu ne ma ñu ne der kenn du ko liggéey baaxul geer xaw ma lan je voir un. ñu def ci superstition. waaw uude ñoo ko war a def mais je suis allée voir le uude un pas mu ne ma tant yaa ngi koy liggéey te doo njaaloo te doo def lu bon di nga avancer. boo gisee wuute tamit mu nekkaat loo xamante ne lu la doon dimbali la yow mi nekkoon jigéen di def aar ci jamono jooju ñu ne lii boo koy doo def bon gisoo wuude yi nga xam ne dañuy mujjee parce que dañuy def naka situl noonu boo koy liggéey da nga nar a jub après nag euh, quand même ma sëgg si sama éducation sama ngëm-ngëm bi ma am euh, taalibe Cheikh laa ah donc si laa yaroo si laa màggee teel a jàng alxuraan xam luy alxuraan teel a jàng bible aussi am certificat évangélique xam luy ah, catéchisme yaa ngi mandargaal dialogue islamo-chrétien waaw waaw waaw xamante nag sama papa nga xam ne euh, à dix-sept ans la jël euh, wérd moom il faut aller parce qu'on nous proposait de de faire ça Je pense que moi, j'ai un 18 euh, avec mon certificat parce que de m'a posé question, peut-être, bon, Les déranger. Euh, euh, si ça ne dérange pas, peut-être, nous avons une solution. Dieu a dit, multipliez-vous. Pourquoi moi, mes sœurs yow da nga question. ma posé ñu ne ma yow noppi loolu loolu du ko posé. yaa ngi fàttali soxna ndem si yàlla Roqay Eugénie Aw. ndeysaan moom moo bindoon le pape mu laaj ko mu ne ko man lu tax man mënu maa nekk sœur donc tu vois. Euh, du hasard des questions hein mm. c' est des questions que que être ñëpp dañ koy dañu koy posé wu. mais peut être ñun dañu am occasion pour pour di poser question yooyu mais yàlla rek moo xam. yàlla rek moo xam je je respecte toutes les religions euh, suñu religion dafa wax ñu maandu respectante. moi je respecte ça. waaye yàlla tamit daf ñoo jox xel dañu war a réfléchir. ni ko waxee wu di laaj tey eh, di ay laaj. dañuy interroger wu surtout man damay interroger wu si. parce que yàlla newuñu seen bopp yi ngeen. ah jox nañu esprit jox nañu cerveau jox nañu. ah ñu lu baax ak lu bon euh, waaye dañu war a am esprit gis nga man euh, j'ai un esprit critique mais nit man lenn rek moo ma intéresse nit bopp bi melal lu la neex defal lu la neex. Mais si la tête marche, si tu es un homme, une personne réfléchie, dégg nga nit ku am xam-xam man dama bëgg aw ma xam-xam. am dara daal moo tax dama bëgg nit ku am xam-xam. daf lay dimbali si àdduna. Ah, xam-xam moo yor réew. waaw daf lay dimbli si àdduna. et daf ñuy dimbli suñu travail artistique. maa ngi fàttaliku euh, sama der yooyu bu ma ko yónnee yóbbu Louvain-la-Neuve à l'université de Louvain-la-Neuve y avait ah, Charles Carrère laa fekk. de France. Euh, France, mais c'est un Sénégalais, un écrivain de Senghor, euh, Khartou Senghor. Il est décédé d'Audjek. Donc, quand je suis venue, moi, moi, moi, moi, moi choisi exposé dans un nouveau cinéma, ce qui est magnifique. Le vieux Mignon, mu ne ma Adama. ah lu am solo foofu parce que da ngay wane ne art ak culture ay buntu la ak ay palanteer yu bëri mën ngaa jóge ci peinture nga dal ci cinéma nga dal ci tannerie nga dal ci ci nga dal ci décoration eh, intérieure. Eh, maa ngi ci <laughs> donc le vieux quand il venu il m'a dit bul wax y avait les et tout mu man maa lay waxal mais il a parlé de mon travail comme si moom moo doon peinture et ci wax yooyu. dama si jël alors damay jël yu bari aussi si artistes yi dama jël ci ku ku ku mel ni Zulu Mbaye. Euh, daf ma dimbali ci benn phrase. bu nekk am na touche am na style am waaye am na ay influence. oui daf ma ci benn wax bu mu waxoon. Mm, ci interview am foofu à Louvain-la-Neuve parce que moom tam da doon exposé quelque part on a fait beaucoup d' expos individuels mu daal di ne comme je travaille sur les signes man je travaille sur les signes ndax paañ tisse bi moo tax. signe yi nekk ci pànc së bi signe yi boo ko waxee mooy lan mooy araf yi li ñuy bind euh, loolu ñuy liir si pànc së dafa am ay signe dafa am ay dessin yu ci nekk dessin c'est des signes africains léegi nag euh, booy liggéey signe booy liggéey da nga koy expliquer et des fois je ne pouvais pas alors mu daal di wax ci benn étude nous utilisons des signes qu'on ne connaît pas mais on les sent alors là je me suis dit moom jàpp naa loolu ci moom À chaque fois qu'on me posait ça, n'empêche, je fais mes recherches avec les signes, qui est très difficile. parce que signe dafa am ci. maa ngi gis sa manteau ne moom ay signes. ñoo ci nekk tamit ay signes sama mari qui fait ça. am na yoo ma ci mën a wax am yoo xamante ne voilà ñu ngi ci mais mënu ma ko expliquer. comme je travaille la femme vraiment les signes sur les femmes man dama leen captiver parce que jigéen daf ma intéressé trop. parce que jigéen muy mystère de Dieu tamit. waaw bi ci yàlla def. ak li mu yàlla. jigéen dama ko yërëm. jigéen euh, dafa dafa doy waar daal te lu muy subir dafa bari si àdduna bi moo tax je je je su leen neexee ñu ne ma féministe la mais euh, jigéen laa vraiment je une féministe moderne vraiment très moderne donc euh, fonk góor fonk sama jëkkër fonk lépp mais dama dama dama dama teg jigéen fu kawe. waaw parce que yàlla sunu borom. moo teg euh, jigéen fenn voilà. dans la religion. jigéen dañ ko teg waaw jigéen ñoo jigéen ñoo nekk ci ci ci ginnaaw góor yi di leen wax lépp. jigéen moo am saar bu ñu ko jagleel ci diine l'islam mooy suratul Nisa. amul suratul Raja amul saar bu ñu léegi dafa am ñoo xam ne nag dañ leen ko war a jàngal jànguñu alxuraan ñooñu. am na ñoo xamante ne tamit dañuy interpréter diine ji selon seen bëgg-bëgg ak seen bakkan. selon seen bakkan surtout góor ñi. ok yow kon ci sa ci sa liggéeyu aar bi da ngay defaale tamit ambassadrice euh, euh, porte-voix voix des sans kooku moom man jigéen rek laay liggéeyal ça n'empêche pas de travailler avec les hommes. mais jigéen daf ma soxal. loolu daf ñuy euh, may ñu wax ci soxna yi sa yeneen naataango yi nga xamante ne yàlla dogal na la yaa leen jiite. Mhm. artiste plasticienne yu Sénégal yi euh, ngeen nekk lim boo xamante ne euh, ci diggante bi yokk ngeen macha allah. liggéey bi am na solo expo yéen a ci créativité bi ak ñoom seen boo doon xayma. mbir yi noo ko gisee ak seen ëllëg ëllëgu jigéen ñooñu nan la ñuy def ba mu ba gën a ñoŋ ñu gën a gis seen bopp. ci li ñuy damay commencé xam nga jigéen ñi fi ñu commencé peinture yàggul donc euh, ci maire yu nu sëy la y avait une autre dame Fatou Fatou Fatou qui est décédée euh, qui habite Seck à Saint-Louis qui fait parti mais yu nu sëy mooy suñu suñu doyen ñoom Anta nekk ci ñoom maire euh, euh, Tata leen donc ñu tegu ci donc aar ci Sénégal jigéen dafa yàggul donc te bi ñu ñëwee. parce que loolu tamit am na lu ko waral am na li ñuy wax pesanteur socioculturelle. lii tax lii tax jigéen ñi bi ñu commencé peinture yàggul am nañ ci explication. man bi may dem Beaux-Arts bañ dama dëgër fit yeneen jigéen man. ñaar nekk rebelle un ñu ko leen la étiquette de rebelle. ñetti nit laa bokkaloon sénégalaise. non on était trois non man ak caane la woon ñoo doon si classe bi donc après la ñu école di favoriser di dugal jigéen ñi. mais bariwuñu woon artiste bu jigéen bariwul woon. architecte bu jigéen bariwul woon. am na métier yoo xam dañ ko féetale woon góor ñi mais lépp ay changé. kon léegi évolué nañ de jigéenu léegi nañu xam ne am nañu chance bu am nañu chance bu rëy ñun bi ñuy dem école benn ñaar ñett ñoo fa nekkoon. xoolal génération yi romb yëpp. yu nu sëy. te ñooñu ñëpp amoon nañu talent ah, ay benn benn lañu. Euh, Seynabou Sakho décédé na yal na ko yàlla yërëm donc quand ils commencé man bi may euh, parce que man dama jàng ba pare doog a dem Beaux-Arts ah dama jàng dem dem Beaux-Arts donc ba ma ñëwee mm-hmm. fekk naa fa euh, ay jigéen mu fekk benn femme bu doon def Mylène Bal da doon def séminaire moom moo jëkk commencé exposé jigéen ñi donc moi j'ai fait deux expos ak moom quatre-vingt-quinze ak euh, avant quatre-vingt-quinze et puis il est parti et ñun en quatre-vingt-dix-sept suñu groupe promotion bi génnoon quatre-vingt-dix ak ñeneen ci tagu on a commencé avec les Ndeye Daro avec les Abigay avec les Jamilatou ndeysaan qui sont partis euh, ak Seydou Sakho. waaye ndono baa ngi fi liggéey baa ngi fi seen liggéey yaa ngi fi. ñu commencé nag def exposition jigéen ñi ñu commencé nag et puis euh, dinaa wax benn affaire le ministère de la culture nag daf ñu mës a topp. ñun on n'allait pas chercher des sponsors dañuy dem ministère ne leen dañuy dañuy kii ñu jox ñu saal. déggal de yombalal leen bi ministère de la culture. daf a yombalal promotion agriculture. le ministère la culture depuis les années quatre vingt dix nag ah. Mhm. quatre vingt dix ñu jàppale. ñu ñaan yàlla loolu ñu woyeel ba tey jii may wax ak yow. Mhm. am na solo ba tey jii ñuy waxal di ñu jox euh, par exemple euh, ça fait deux ans daaw jéeg jox nañu daaw jox nañu daaw jéeg jox nañu trois millions léegi dañoo bëgg a joxlu parce que dañu joxoon un million ñu ne leen dolli ñu dolli ñun ñuy jàppale ah ministère de la culture jigéen ñi nag di góor góorlu ñun on fait tout pour que le maximum di jigéen ah nekk parce que ñu si bari dañu divorcé bu ma la waxee ñu bari dañu divorcé divorcé mettre à cause de la peinture seen biir famille léegi nag dañuy def tout wax ci suñuy société toléré wuñ ko toléré wuñ famille yi waaye yow gis nga ba tey ba tey des na ñu dund seen aar ba tey des na d'accord kon liggéey bi des na ci liggéey bi des na am na lu des lu bëri waaw dañuy góorlu nag di mhm. dajaloo ku soxla matériel ñu uti matériel jox la nga liggéey ba ñu ngi def vraiment on est maintenant vraiment dans les soixante dix. macha allah yéeguñu. waaw waxtu bi euh, di dem. waaw euh, waxtu bi tënk nañu. ñu bàyyi la nga tàggatoo Adama Boye présidente euh, artiste plasticienne du Sénégal. di leen gërëm di leen sant. donc di leen gërëm di leen sant Awa di sant suñu caméraman. Ndour euh, di leen wax merci et j'espère que émission bi dina jël jigéen ñu baree baree bare ñu wax lu ñu xalaat ñoom tamit donc euh, di wax daal euh, góor ñi nañ jàppale jigéen ñi nañ jàppale seen jabar yi bëgg def art que ce soit art lyrique art art art visuel théâtre surtout le cinéma nañ ñu jàppale pour bàyyi ñuy def suñu aar parce que lu ñuy def ci kër ga art la donc ñu bàyyi ñu développé ko ba euh, à l' extérieur. la bu ñu jigéen moom bu bëggee góor rek jeex na. macha allah macha allah. merci beaucoup ak jaajëfal ko bu wér. Adama Boye mu nekkoon suñu gan ci émission art et culture fii ci sunu label TV jaajëfal leen di leen jox daje euh, ci lu yàggul dara incha allah ba tey ci émission art et culture ak euh, beneen daanaan ci caada ak cosaan jërë ngeen jëf.